Abdoulaye yaa ngi wax lu am solo. waaw mooy suñu mail yi. Mm-hmm. ñun ñi am compte Google. man am naa compte Google moom mooy tax. Mm-hmm. léegi nag naka lay def ba loolu. ak lan moo indi nga ni mën nañ koo ñàkk la premier décembre. waaw kay léegi ma laaj yow ñaata ko ñaata mail nga am yow. ñaata adresse mail benn adresse mail euh, Gmail ak benn adresse mail Hotmail mooy bi may njëkk am compte si àdduna bi. exactement yow bon au moins voilà am nga deux mais y en a qui ont trois quatre cinq adresse juste que dañuy fàtte mot de passe bi dem créé waat. beneen mais tu oublier mot de passe. waaw bon ñoom procédure boobu day compliqué ci yow dee daal nit des fois day ñëw ne la créé mu mét. des fois nit jënd téléphone portable ñëw ne am téléphone activé ma sama téléphone qu'est-ce que tu vas faire ca nga koy créé kii compte Gmail jox ko mot de passe bi mu wéy ak moom. maintenant ce qui est dangereux mooy xam nga léegi adresse mail rawatina Gmail alaaji dafa dépassé adresse mail. parce que y des années en arrière <clears throat> mail c'était juste pour recevoir des mails mm -hmm. mais léegi au de la de mm -hmm. par mhm. exemple si tu as un compte Microsoft daf lay permettre nga am accès ci yenn euh, service yu bëri Outlook ne la permettre nga utiliser am na benn instant Office 365 dinañ la may li nga xamante ni moom mooy 2 giga gratuitement ngay utiliser OneDrive et cetera su fekkee Gmail la dafa am service yu bëri yi ci rattaché Google Drive YouTube. YouTube. parce que tu as un compte YouTube tu ne t'en rends pas compte. am nga chaîne YouTube. Google Drive c'est-à-dire sa ay fichiers yu bëri mën nga ko duggal ci li nga xamante ni moom mooy sa Drive. des utilisateurs d'iPhone comme moi dañuy obligé utiliser li nga xamante ni mooy compte Gmail pour bénéficier wu ci service Google Drive boobu noonu parce que service la bu extraordinaire tu as énormément de staff de de trucs qui sont dedans yi nga xamante ni mën nga ko utiliser. Google photo nga xamante ni mun nga ko activer par inadvertance muy synchroniser li nga xamante ni moom mooy sa ay photo di ko duggal ci sa cloud. wala accepter et avancer gars yi coché lépp accepter avancer. coché lépp ça pour autant lire loolu c' est de nature humaine. Mhm. tu vois accepter avancer duggal sa ay photo yow mës nga liir affaire compte terme d' utilisation. je ne l'ai jamais fait. moom mësuma ko lire no mais dafa foogoon naa ni yow au moins geek que tu es tu prendrais au moins cinq accepté damay bës coche bi rek. def accepté tout jàll nga def sànni affaire bi. mu mais loolu. bës coché mais c'est normal. loolu lire roman ko gën a yomb. en fait xam nga lu tax man je trouve pas intéressant nga liir ko boo ci gisee lu la arrangé wul aussi tu vas accepter parce que yow yaa soxla affaire bi alaaji. c'est-à-dire tu peux lire juste pour avoir l'information concernant la politique de confidentialité et cetera d'ailleurs politique de confidencialité boobu sax le Google di mettre à jour moo tax mu décider à partir du premier er décembre day supprimer bépp compte Google bi nga xamante ni nit ki toog na deux ans utiliser wu ko. mais man sama compte Google maa ngi koy utiliser. yow yaa ngi utiliser sa compte Google mais y a des personnes qui ont plusieurs comptes Google. te am na si ñi nga xam ne seen contre Google am na seen photo man par exemple samay photo depuis deux mille onze ba léegi mu ngi ci sama Google photo defuma ko ci iCloud ci sama Google photo la nekk pour te dire important bu mu am tu as des documents drive yi nga xamante ni da nga koy partager ak sa ay partenaires soit yi nekk à l'étranger wala ci sa entreprise ni ngeen di liggéey souvent vous faites des partages de documents nga am ay documents yi nga xam ne c'est super confidentiel yi nga xamante ne c'est très très utile yaa ngi ko def ci sa compte boobu mhm. ak ay mail par exemple <coughs> bañ nekkee xale dañ doon am ay correspondant bu temps yi ñu dem cybercafé yoroon ay mail yi nga xamante ni c'est des c'était des mails vraiment des mails de souvenir quoi mhm. léegi yooyu noonu yëpp ah, imagine nga man mail amoon naa ci benn gel bu tuddoon na alaaj <laughs> loolu mais du dëgg ndakate mosul tudd Sabrina grand la. nga ni ma. après am na mooy bu boo envoyé waat nit message mu bañ a tontu mooy wiis mooy affaire boobu nga def mu def grrr. <laughs> bu mu ma ne bu mu ne ma. yow MSN Messenger ngay wax. waaw bu mu ne what time we wanna Skype ma dem lijjanti Skype ba am. Skype ngay caaxaan rek webcam bi lank lonk ko koy ndakate benn grand la. alaaji yaa ko Sabrina laa soxla yow. <laughs> naaf du sabrina <laughs> alaaji yàgg nga xas la yàgguma xas la seriously yàgg nga mooy webcam yu ron yooyu ñu doon lonk mooy yu ron yooyu dañ ko doon lonk ci machine ci machine te doo xamoo ban qualité image la doon am c'est extraordinaire c'était le beau vieux temps ndeysaan boobu kii moo amoon MSN Messenger. bu Hotmail la woon bu Hotmail la woon. après point fr. laa xam ne nom de domaine dafay dafay jëriñ. nangam nangam dafay jëriñ waaw parce que man Hotmail point com laa amoon après j'avais MSN Messenger j'ai connu pas mal à ça après par la suite y a eu MySpace. tu vois tu te ci laa xamee yenn rappels yu bëri ndeysaan da danga doon am bloc. da nga doon am bloc xam nga après am ñoom Abdallah et cetera waa Gëb la. créé fi King Size. King Size ndeysaan en partenariat ak un norvégien tu vois ci biir laa nekkoon. affaire King Size bi ma nekkee rajo foofu laa doon bay ay son de. mu ngi noonu nag damay ubbi son bi pëlee ko ci King Size rek ubbi sama benn euh, magnéto bi nekkoon Windows. du record wala. FLV player. wala wala wala wala Adobe Audition. Adobe Audition mu recordal ma ko qualité bu xaw a. tane daal tane tane da ko doon sàcc quoi. Euh, sàcc rek léeg-léeg nga enregistré ba ci digg bi dégg king size. Euh, waaw <laughs> non mais. bu paree ma koy dagg ba mu set. macha allah continué samay continuation. c'était un exploit Alaaji. non je te dis king size après bon. c'est Facebook qui est venu en 2006 ñu jot ci en 2008 bouleversé affaire yëpp tu ah mais fallait hein. waaye social après boobu lañ commencé wax réseau social tu vois bon bien bien vrai que am na yeneen réseaux sociaux yi nga xam te existé woon nañu avant mais c'est Facebook. donc le le truc de. Google de l'information de Google. <coughs> Mhm. si je comprends bien ça ne concerne que les comptes qui ne sont pas actifs. deux ans comptes yi nga xam ne toog nañ deux ans nit ki envoyé wu ci mail donc defu ci ay activités. yi nga xamante ni day permettre ñu xam ndax compte bi c'est actif ou pas. Mmh, maanaam tu na pa reçu de mail. tu, na n'as pas envoyé de mail. tu na pas utilisé le compte pour travailler nanani nanana. merci beaucoup man man nag wax dëgg yàlla ku ma yónnee mail dang may woo téléphone ne ma yónnee naa la mail xool ko. waaw je suis comme tous les Sénégalais je pense. oui bon mais. c' est normal peut-être yow mail du man boo ma nee ma yónnee la ko mail wala whatsapp dama naa la whatsapp ma ko whatsapp waaw yéen whatsapp <laughs> whatsapp boo gën a moo gën a moo gën a gaaw ci yéen mais mail quand même booy jëflanteeg ñenn ñi dañ lay imposer ngay utiliser li nga xamante ni moom mooy mail parce que traçabilité bi moo tax quoi mais whatsapp aussi am na traçabilité whatsapp mën nañ ko delete mun nga ko delete saa waay. Ah, kenn mun na koo delete fee waaye yow nga garder di oh. bañ a delete. waaw waaw ba pare WhatsApp aussi ah, je t'avais présenté le. les éphémères messages. éphémères messages déjà benn euh, copie de WhatsApp qui permet de créer des fake conversations nga xamante ni tey si ma la ko présenté woon alaaji. doo gis différence bi su ma defaree sama discussion WhatsApp. man ak ku ma neex jël sama ay photo envoyé ko mu envoyé ma ay photo moom ci wàllu boppam yi nga xamante ni pour te dire dangerosité intelligence artificielle laa ko généré et cetera ñëw ne la alaaji Ablaye Lidé laa doon waxal keroog mu yónnee ma ay photo nuddam mu ngi doo ko weddi parce que doo gis différence entre WhatsApp fake bi ak discussion bi nga xamante ni dañ ko defar et c'est des outils qui sont là. Le mail est très intéressant tu vois loolu moo tax yenn discussions qui sont hyper confidentielles et cetera faut les. il faut les faire sur le mail. sur le mail quoi donc euh, loolu la <clears throat> maintenant ça concerne pas quand même les comptes yi nga xamante ni ils sont à une chaîne YouTube bi nga xamante ni mi ngi continuer di dox ñooñu duñ leen supprimer tu vois. d'accord mooy bu fekkee ne sa compte Gmail am na chaîne YouTube bu continuer di dox. waaw. du ñu supprimer compte boobu. même soo utiliser wul soo soo liirul mail bindoo et cetera beneen bi mooy les écoles et les organisations aussi n'en font pas partie. Hmm. parce que dañuy bañ a. xaaral ma ñëw yónnee fukki mail ci sama mail. <laughs> waaw kay yónneel mail. mais boo yónnee dinañ la mën a permettre nga garder sa mail. waaw parce même boo toogee six ans utiliser wu ko. boo yónnee nga yónnee léegi léegi nga déglu ko si télé bi nga yónnee. loolu lañu loolu la wax sax ci ci ci soit boo bëggee bañ a bokk ci ñi ñuy supprimer yónneel mail wala nga utiliser Google Drive wala nga utiliser chaîne sa chaîne li nga xamante ni moom mooy chaîne YouTube bi et cetera ça de conserver li nga xamante ni moom mooy sa compte boobu noonu. parce que tamit c'est vrai euh, je me rappelle il y a deux ans Facebook avait supprimé imaginez plus de sept milliards de faux comptes 7 milliards 7 milliards trois ils ont 3,4 milliards d'utilisateurs actif parce que souvent il faut insister sur le mot actif bu ñu waxee actif mooy comme yow ngay dugg di génn di publier et cetera bokk la ñi nga xamante dañuy créer seen fake account rek pour. pour saagawaatee saagawaatee c'est pas lié parce que plus ñuy dem plus ñi nga xamante ni ñoom ñooy utiliser service Google yeeg et cetera. dañuy obligé nit ñi ñuy def vérification d'identité parce que àdduna bi toll na foofu quoi pour lutter contre la fake parce que y a y a beaucoup de fake ak surtout arrivée intelligence artificielle yi nga xamante ni lu waay bëgg a def rek daf koy def. Babs Academy nee na le plus simple c'est de regarder une vidéo sur YouTube. bon quand xam nga pour regarder une vidéo sur YouTube amul benn impact par rapport ak li nga xamante ni moom mooy sa compte. mais quand ton téléphone est euh, sous Android. quand tu as le truc Android yow sa compte Google boo ko amul doo mun a. dugg YouTube. waaw ouais, mais mun nga am compte Gmail te du sa te YouTube du actif. maanaam sa chaîne YouTube il faut nga alimenter ko. non mais par exemple boo amee par exemple l'accès pour aller sur YouTube c'est le compte Gmail. waaw ouais, c'est le compte Gmail. donc boo seetaanee YouTube ça peut te. ça de regarder mais pas d'activer ta chaîne toi. Ah. d'activer ta chaîne maintenant qu'est-ce qu'il faut pour faire euh, ne pas faire sauter son son adresse mail. ngi nii moom laa di doon wax. lire lire ou envoyer un mail. lire ou envoyer un mail. utiliser Google Drive. utiliser Google Drive. waaw. voilà. seetaan YouTube comme il a dit. seetaan YouTube. partager une photo. télécharger une application. Ah, parce que ci lañ dëkk xanaa. ci lañ dëkk. wante de xanaa duñ ma supprimer. du yaakaar naa sax duñ supprimer kenn. waaw gul gul ñu dul nag ñi nga xamante nee naa am na ñoo xam jànguñu tamit quoi. waa may ñu fàtte seen compte amatuñ ko utiliser tuñ ko loolu je comprends. waaw je pense que sax bu ñu defee politique boobu c'est dans ce sens la de récupérer en fait espace inutile bi nga xamante nit ñi ñu ngi koy utiliser. Mhm. parce que c'est de l'espace et les données coûtent excessivement cher de nos mhm. jours comme je dis. données yi dafa cher et cetera donc suñ demee ba Facebook di supprimer ay compte Google commencé supprimer ay compte il faut que nit ñi aussi di bàyyi xel ci utilisation bi ñu am ci ci ci service Google. kon si je dois retenir ce que tu viens de nous expliquer c'est que fii ak le premier décembre bépp compte boo xam ne créé woon nañ ko Google. Mhm. Euh, nga fàtte ko wala utiliser ko mu inactif maanaam amatul benn njariñ ñu gis ne toog na lu war a juróom-benni at defuñ ca dara daañu ci supprimer. deux ans deux ans. deux juróom-benni at. non. ci <laughs> ñaari at maa ngi jortoon jortu lu rafet nag ci yéen ñaar la ñaar hmm? ñaar et puis loolu ça ça arrive à tout le monde ah man que am ay sept huit mille Gmail yow ban ak ban ngay utiliser bari na yëpp ngay utiliser en même temps bon pas yëpp quoi mais comment tu fais xam nga ay jamono dafa amoon ci man sama mot de yi dama leen di fàtte mais da def benn mot de ba pare léegi ak les les les ordinateurs les téléphones y a des trousseaux de mot yow sa téléphone y a un trousseau trousseau de mot de passe a de mot boobu yow da ko jël linké ko ci li nga xamante ni moom mooy sa empreinte. waaw su may dugal dara bu bees nii danaan ma ndax damay def empreinte. jeex na su ma defee empreinte mu ubbi ko. loolu nag ba loolu aussi am na beneen danger tey sa téléphone portable bu ñu ko sàccee am code bi. c'est-à-dire le gars il a accès à ton troupeau de trousseau de mots de passe l'ensemble de tes mots de passe ce mot de passe PayPal ce mot passe e-banking ce mot de passe net banking ce mot passe euh, Wave Orange tout ça lépp li nga xamante ni da ko enregistré directement ci trousseau de mots de passe que ça soit Facebook Instagram Gmail lépp il a accès à tout juste parce sàcc na sa téléphone te xam na sa code bi ngay déverrouiller sa téléphone xamoon nga loolu wala sa ordinateur man sama code téléphone bi empreinte la wala xool muy ubbeeku léegi nag boo ta testé empreinte ñaar ñetti doxu dalay naan dugalal code bi da nga fàtte waa def may wax loolu léegi bu ma waxee code bi damay jàmb rek taf taf taf taf taf taf taf mais man nag sama code damay fexe mu am ay ay ay hiéroglyphe lan pour mu compliqué waa caractère <laughs> caractère spécial. mooy moonu ay am ay dièse ay étoile ay virgule deux ay un ay majuscule ci digg bi man yëfi caaxaan yooyu yëpp laa ci boole. mais alaaj loolu mooy. dañ maa mos defal benn test de sécurité ci trente secondes sama mot de passe bu njëkk boobu mot de passe laa ko tuddee woon. mot de passe mot de passe. alaaji xam nga caaxaan yooyu laa ne. <laughs> da nga da cest lu tax ñuy wax nga ciy boole ay caractères spéciaux ay majuscule et cetera parce que y a des euh, programmes yi nga xamante ni dañuy casser. mot de passe bi très très rapidement. Hmm. c'est-à-dire dañuy tourner. rapidement taf taf bu ñu rombee alphabet vingt six lettres yi déjà vingt six lettres yi mun nañ ko tourner def ci ay combinaison en trente secondes léegi léegi ñu génnee sa li nga xamante moom mooy. sama ah, mais man kay damaa gis machine yoo xam ne dañuy génne mot de passe su ñëpp. voilà léegi boo ci dollee sa hiéroglyphe yeeg yooyu. ça prend beaucoup plus de temps pour que li nga xamante ni moom mooy programme bi pour mu li nga xamante ni moom mooy sa maanaam ay étoile ay jeex ay chiffre ci digg bi ay majuscule ak minuscule fu nekk laa ci eh, man daal am naa ci boo xam ne phrase la daal phrase phrase de passe loolu la ñuy phrase de passe par exemple man sama mot de passe am na espace sama mot de passe espace yow sa mot de passe lan la am na espace sama mot de passe mot de passe la <laughs> am na espace. alaaji imagine nga juumoon wax ko ni. ah ala su ma ko waxoon sax nit ñi duñ ko mën a bind. <laughs> mun naa la sama mot de passe Abdoulaye la fekk ne ni ma ko bindee <laughs> nit ki munu koo deviner. la a bi mun na nekk arobase. b bi mun naa kaa dëpp. tu vois o bi mun na nekk zéro mooy nekk nga ko def euh, beneen kii. tu waa L bi mun nga ko def 1 A bi mun nga ko def arobase yow c'est-à-dire sa tour rek mun nga ci créer mot de passe boo xamante c'est unique dans le monde nit ki du ko du ko mës a. waaw mais c'est ça la la beauté des mots de passe. ah voilà euh, Sam.